ci bi. ah perte nga gauche perte droite perte ci diggante bi. ay jongante la. ok ay jongante. dañuy jongante man ak yow. kon nag jongante bi saf-saf. a ñàkk a yomb yomb. mais mademoiselle dama bëgg bàyyi mii bàyyi di koy jël sànnil ma ko ca xaj. dama bëgg nga wax ma ñaata ngay laaj lum ci doon ma def ko am naa ko mën naa ko te dama koy def. wala léegi da nga bàyyi ñoom a ñaar nga jëli njaago bi jëla góoru njaago ñu ne lakkat xamul caaxaan bàyyi moo doon wax waxu jabar jabar waaw c'est bien yow la may premier njëkkee ba naan pataas. kenn du kin rumbax. rumbax ah, c'est pour les c'est pour piñe piñe capara càkkin capara càkkin capara pindalo capara càkkin gaay tii càkkin càkkin man càkkin càkkin <laughs> dégg nga pindam pindam ram càkkin càkkin patas qui débarque qui débarque ça c'était son grand-père son grand-père refusait de dire la ilaha illallah alors le petit-fils a dit tas ma tas rambe ki ndax et le grand-père a dit la ilaha illallah et il est mort d'accord wax ji dootul man ak yow mais man ak bàyyi la dama ne woon damay xeex ak moom jàpp ko tuccu tuccal ko pamte pamte ko jàpp xol bi di ko bës addi ko bës addi ko bës dindi kaxaw bakkana bi benn baax benn il fait avec moi bàyyi man lay jëm a suuf moom daa am sax saman amee cu amee cu John Seck moom non lii moom faaw ñu defaat ko jongante bi vraiment kontaan lool kontaan naa trop foo defee ngeen mën a xamaale samay mbokk ñu defaat beneen jongante saraax la ñuy def ci xew-xewu lamb tey fekk fa sunu lamb ma seeti per Balla Gaye 1 may coach su Balla Gaye 2 moom père Balla gannaaw ba ko feebar tëralee diirub ñetti at sunu lamb dafa xëy seeti ko dalal ko waxtaan ak moom ci wér gi yaramam ak la mu xalaat ci lamb ji journal ba xam le ne coach su la Lion de Guédiawaye boobee père Balla fekk nañ ko mu mer ba fut ñamu mere du ñenn ñu dul mbooleem ñi nekk ci axlu lamb am fa dogal di def ak dindi mbooleem ku nekk ci lamb am fi tur am fi baat boo ko déggee danga cay jële am njàngat mu rëy moom la mu boo fi nekkee nekk ci jàmm ak salaam wër pëleg ñëpp ay daw wuy xëyee gis leen ci sa keppaar waaye boo noppee wër wala nga nekk ci ay tolof-tolof dootoo gis kenn rax dolli ne ax lu lamb dañ bàyyi gisuma kenn kenn defalu dara ba ñu ko laajee est-ce que mu ngi lay jàppale ci sa feebar bi nanguwu caa wax la mu ca xamle mooy dem ngeen fëgg buntu këram laaj ko ba xam ndax mu may jàppale wala déet dama bëgg ñépp xam ne Balla Gaye li ma ànd ak moom du koppar dama ànd ak moom ba dara du dara te ba léegi maay nekk ko exercer ba ma entraînement ku ci mel ni Balla Gaye 2 Elton Sococim ak les deux la mu xamle mooy loolu ñoom la engagé en bu ñu ñëwee écurie baa ngi dox bu ñu ñëwul écurie baa ngi dox ténor yi lamb ji dañoo tàmb ku ci am combat daw dem ca France wala ci États-Unis préparé ji ko fa waaye loolu man Balla Gaye damaa jàpp ne yàqub xaalis képp la diggante Balla Gaye 2 ak Boy Niang 2 loo ca xam mu ne sama yoon nekku ci ndax Balla Gaye 2 war naa jël Boy Niang 2 mu ne loolu ndax waxtaan naak ñoom ci diggante Balla Ama Baldé ak luy gàllankoor làmb keneen ka adversaire gàllankoor ci làmb mooy nees le journal ba xamle mooy gannaaw ba ko Sa daanee ca ba léegi nii mënatul am combat le avril ca stade Demba ba Sa suqee ay laafam ba léegi moom nees combat da koy të boobee ba léegi année balance yaa ngay gën di tegloo ci la baleine Lansar journal ba xamle ne nees bu bëggee continuer ci ay làmbam faaw mu saafara li ni mel fexee am combat am victoire nekkaat wa doon séentu ci làmb dafa mel ni dañ koo baareel buntu ba tafaatin Sa Thiès Yékini Senior Bombardier dafa mel ni kenn nangu koo tàllal loxo moom rëg-rëg ni mu du mooyoo Malick Niang ak Forza dafa mel ni noonee la ko mbër mu soxla du mooyoo le journal wa xam le mooy rëg-rëg ñi mu bëgg amul kenn ku ci wane ne bëgg naa bëreeg rëg-rëg amul kenn ku ci sawar ci waxi rëg-rëg amul kenn ku ko bëgg keneen ka bëgg a bëre te gisul ku mu bëreel mooy Cobra 2 gannaaw ba mu toogee ñaari a bëreeg moom ñëwal ubbil na la ay dafa doy sëkk ñaari at ba jëm ci ñetti at sans combat loolu dafa moom yombalal na ko promoteur yi yombalal na ko mbër yi képp ku pare pour jëflante Cobra 2 rek ñëwal mu ngi lay xaar combat bu rëy ba ñuy xaar ñoom waa Gambie muy diggante building ak Boy Balla jamaykee ji làmb ji di jooy ndax coronavirus boobee la indi vaccin tegal leen ko crise bi làmb ji di dund boobu le combat mooy vaccin ba journal ba xam le bi le combat Gambie yépp koy xaar fépp fuy grand place wala groupe whatsapp bi le combat la ñuy a fës bi ñu leen jox dig daje ba ëllëg incha allah bi ah perte nga gauche perte droite perte ci diggante bi. ay jongante ok ay jongante. dañuy jongante bi saf saf. waaw man ak yomb. mais man ma sax dama bëgg bàyyi. mii bàyyi gaajo mii nga daal di koy jël sànnil ma ko ca xaj dama bëgg nga wax ma ñaata ngay laaj lum ci doon ma def ko am naa ko mën naa ko te dama koy def wala léegi danga nga bàyyi ñoom a ñaata nga jëli njaago bi jëla góoru njaago ñu ne wax kat xamul caaxaan bàyyi ma doo wax waxu jabar jabar waaw c'est bien yow la may xam ne njëkkee bi xanaa non non man la boo déggee tëggkat ba naan pataas. kenn du kin rumba. rumba ah, c'est pour les c'est pour les. rabel bataas piñe piñe. cabara càkkin cabara càkkin cabara pindala cabara càkkin. gaay tii càkkin càkkin man càkkin. Et le grand-père a dit laa ilaaha illallaah il est mort. d'accord wax ji dootul man ak yow mais man ak bàyyi dama ne woon damay xeex ak moom jàpp ko tuccu tuccal ko pamte pamte ko jàpp xol bi di ko bës addi ko bës addi ko bës dindi kaxaw bakkana bi benn baax benn il fait avec moi bàyyi man lay jëm a suuf moom daa am sax sama xamante ametum coon sekk moom lii moom faw ñu defaat ko jongante bi dama kontaan lool kontaan naa trop bu ko defee ngeen mën a xamaale samay mbokk ñu defaat beneen jongante